Awa dem na këng waxi mag dem dantaali dagg war na mbaam lu waay doon jaay leen mu lamb Tapha Mbeur am na ñaari avertissement Tapha ñaari avertissement arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Ada Fass nee na pare na laaj na Tapha Mbeur arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 31 octobre 2021 et arène nationale Ndiaye production njiital ba di Fallou Ndiaye il est 20 heures 18 minutes ñaari xale yaa ngi noonu Ada Fass jàkkaarloo dafa am mbër moo la wan ginnaaw di lootoo lootoo bu tal lootoo bu teey lootoo bu diib lootoo bu yambare ñaari xale yi waaye du ñu ca mujj ñoom ñaari xale yi. du ñu ca mujj bàyyi ji lii bu ñu jàppantee nga xam ne ay xale lañ ten ndaanaan lañ waaye kii di Ada Fass booy xool dafa bëgg a xeex waaye gëmul xeex bi kii di Tapha Mbeur nag na toog ci ay tànkam toog moom dafa mel ni dafa libéré Ada Fass combat bi bàyyi ji lii. ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu ndeysaan Tapha Mbeur jiital tànk ndi joor Ada Fass jiital tànk ndi joor ñoom ñaar ñu war xeex bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex ku ci nekk am na loo xamante ni moo la ci combat bi kii di Ada Fass jege Tapha Mbeur balaa ngay xeex nga xam ki ngay jàppanteel Tapha Mbeur xeex arrangé na ko waaye balaa xeex jàpp Ada Fass ñoom ñaar ñëpp ay mbërëntaan lañ Ada Fass macha allah wet gi neex na day bëree wet day bëree tànk Tapha Mbeur macha allah moom day bëre wet day bëre tànk waaye ñoom ñaar xam naa bu ñu wuree ci bëre di nga gis bëre bu neex ndax ñoom ñaar ñëpp ñaari xale lañ Ada Fass jàkkaarloog yéen méngoo ngemb lu weex li takk ay dàkkal ngaam ndaysaan ma nga takk benn téere ci bopp bi dafa mbër moo leen woon ginnaaw langoo benn sengoor bu xonq takk ay téere ci loxo ya bopp baa nga weex tàll ak saafara ñoom ñaari xale yi daal Ousseynou bu doon may Ada Fass du ma maye tànk du ma maye wet ña ngay xeex ña xeex Tapha door nañ ko Ada door na Tapha Mbeur dina daan daan na ko Ada daan na Tapha la ma la waxoon balaa nga door danga koy jàpp Ada daan na Tapha Mbeur daan na Tapha Mbeur Tapha Mbeur daanu na jël bu ko bett oh Tapha Mbeur daanu na jël bu ko bett waay eh Ada Fass eh doomu Fass ba yëngu na eh